atia jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk en bu 221 people ñoo ngi leen di nuyuwaat di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat ku nekk sa wàccuwaay di naan namoon naa leen tey nag ma fas yéene dalaat beneen kàngam di kilifa nga xam ne doonatu koo xam ne dañ koy présenté ci biir sit bi ndax jot na fee jaar ak révélation yu am solo waaye yoo xam ne jàll ne ko ñu waxtaan ko ci diggante baatin xam-xam ba nga xam ne suñu borom sédd na ko ci diggante ñaan ak paj kooku mooy Serigne Ousmane saar tey nag nee naa leen ku déglu dina dégg xam waaye ku déglu di nga dégg ci kuje langue politique bi ciy dox saa su nekk ak li nga xam ne suñu kanam la soreetut euh, dinañ yaatal bu baax baax waaye lii lépp nag laata may ñëw kilifa gii damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Cheikh ñu ngi leen di nuyu euh, di leen ziar bu baax a baax di rafetlu seen ànd bi ak yéen di nuyu seen mbokki internet yëpp di ñaan lépp luñ fay wax rek yàlla na jur njëriñ incha allah. jërëjëf sëriñ Ousmane Sarr ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw euh, sa nuyu set yooyu tànd ak dalañ ci kontaan bu baax dinaan la dalal jàmm aca ñu séene waxtaan ci xam rek waaye sama programme dinañ waxtaan ci juróom-ñaari ponk tënk ko ci diggante ñaan ak paj bi nga xam ne saa su nekk yaa ngi ci def résultat yu maj ayib ñu bëri di koy rafetlu ci biir réew mi ak bitim réew xew-xewu jamono du lenn li nga xam ne xew na ci biir réew mi di lëmbi ba ak léegi di coow lépp dinañ ko waxtaanee topp leen vidéo ba mu jeex waaye dinañ ci seppi lu ci mel nii euh, wax leen ko ngeen bàyyi ci xel lu mu waxoon ci APR euh, dañuy dëkkee di supporter que tàccu ndax gisut kenn koo xamante ni mën nañu am dara ci élection yi ñu dëgg dëgmal 2024 euh, président Macky Sall am na ko mu tab jiital ko mu di premier ministre di Amadou Ba moom la tànn coow li bëri na. ndax tànneef ba am na ñoo xam ne doy na leen wala doy leen coow laa ngi bëri seen biir am na lu mu ci gis nañ ci yaatal am na lu mu fi waxoon dinaa ko laaj ndax da koy dëggal ba léegi wala am na coppite euh, mu di président Ousmane Sonko ak kii di euh, président Déthié Fall ba ci Karim Wade foofu am na lu ñu fa war a waxtaan yaatal ci bu baax a baax gars yi ku déglu topp di nga dégg xam-xam waaye di nga dégg révélation am solo listixaar laa bëgg ñu del siwaat bu yéeme bi ngay def euh, salaamaaleykum wa rahmatullah min jadid sëñ Cheikh comme noonu nga ko waxee rek noonu la demee Euh, léegi-léegi damay faral di wax lu bari ne maanaam jëmmi ñaan bu amoon caabi seet lay doon boole listixaar jëmmi ñaan bu amoon caabi seet lay doon ndax dafay mbir moo xam ne euh, nit ki mënoo koo ñaanal te xamoo gàllankooram fu mu nekk wala jafe-jafeem nit ki it mënoo koo faj te xamoo lan mooy jafe-jafeem yooyu yëpp nag li la ciy dimbali pour nga xam ko maanaam jëmmi seet lay doon jëmmi seet moo lay dimbali ci lool mhm. ndax yooyu dafay loo xam ne dafay lu am solo ci dunduk doomu aadama ndax seet dafa wuute te bari façon loolu wuute gi te bari façon rek mhm. dafay tegtale solom mhm. maanaam fi mu nekk nii man li ma xam ci ay seet yu bokkut rek ëpp na fukk yoo xam ne dama koy jëfandikoo waxuma nag yi nga xam ne jëfandikoo ma ko ok ndax am na ñoo xam ne danañ seet ci chiffre am na ñoo xam ne danañ seet ci ndox am na ñoo xam ne danañ seet ci xotu gerte am na ñoo xam ne danañ seet ci jëmmi suuf am na ñoo xam ne danañ liggéey turu yàlla ba rawaan bi wuy si leen ñu ciy seet am na ñoo xam ne danañ seet ci ram yooyu yëpp nag dañoo gën a efficace ci léegi léeg nit ki ci lan lay seetlu bu fekkente ne ci nangam lay seet léeg-léeg dafay am boo xam ne moo ciy gën a efficace waaye teewul nag yëpp a wér teewul yëpp a wér ndax boo xoolee am na koo xam ne démbam moo ko tax a jóg moom ci ay jafe-jafe yu mu jaaroon wala fu mu mosoon a dugg wala mu takkoon soxna ba pare wala benn oto bu mu jëndoon wala kër wala entreprise bu mu defoon ay action mu bëgg cee bëgg a feneen am na koo xam ne ni tey moo ko tax a jóg kooku taxu jarut muy xaar ndax dafa doon koo xam ne dafa bëgg a déposé benn mhm. wala mu bëgg a boole ak nit liggéey wala mu bëgg a takk soxna wala mu bëgg a jënd kër wala mu bëgg a tukki mhm. kooku du kuy xaar da nga ko naa jarut coupé sa téléphone da koy wax lu leer léegi-léegi dafay am koo xam ne ni suba moo ko tax a jóg maanaam projet bi mu bëgg a dugal xaalisam ñi mu bëgg a jëflanteel entreprise bi mu bëgg a ubbi est-ce que su ma ko ci defee wala su ma ci defee sama xaalis yooyu yëpp nag dafay doon yoo xam ne yu wuute la léegi nag nit ki bu ñëwee bu la waxee benn ci yooyu yow yaa ci tànn yow ba nga xam ne moom nga cay jëfandikoo am na ci ñoo xam ne ñaam ñàkk seetlu wala ñu ñàkk xam seen sarax rek indi na leen jafe-jafe ndax da ngay gis koo xam ne mét métier maîtriser na ko maîtriser koo xam ne jéggi na dayoo moom xam na ne mën na ko patron mit xam na ne mën na ko ay collègue am xam nañ ne mën nañ ko mën na ko waaye fi mu nekk mënu fee jógee ne dafa mën seetu dafa dafa dafa seetluwut wala dafa dajewul ak ku mën a seet koo xam ne mën naa am sax benn mbuusu ndox wala benn keesu mbiskit wala benn takku tàndarba bu ñaar fukki dërëm bu ko génnee ay soxlaam yëpp yéeg ay soxlaam yëpp fajo kon loolu dafay dellu ci seet moo tax man jéggi dayu gu ci jéggi dayu bëgguma koy wax sax ndax léegi léeg mën naa wax seetal nit ki ba wax ko ñaata soxna lay am ñaata doom lay am mën naa ko wax ban doomam moo ko ciy jariñ même su ma neexee sax mën naa ko wax kan moo leen di koy tuddee waaye nag léeg-léeg dafay doon loo xam ne dafay nekk loo xam ne xëy na du ko amal njëriñ lu bari comme dana ci yegg si li ko ëppal solo mooy nga fexe ko seetal bañ ko wax lu koy tiital wax ko li koy jëriñ defal ko ay sarax yoo xam ne ni bis bu ci jaaree dana jëriñoo moo tax ba léegi léeg-léeg da ngay gis koo xam ne dafay jàpp ne ci mbiram la waaye boo ko seetalee da ngay gis ne waajuram moo kontaanut ci moom boo ko seetalee du gàllankoor du liggéey du dara waaye moom dafa am problème ak juróom mooy bari na ci jàngkat yi dañuy dem ba jàng am diplôme nekk borom xam-xam nekk cadre mais duñ mën a tekki dara duñ mën a liggéey dara ñu jàpp ne xëy na euh, dañoo dañoo dañoo liggéey leen wala cat jàpp leen wala rab jàpp te fekk na seeni wayjur ñoo kontaanul ci moom nga xam ne da ko naa yow moom bul ñaanu bul dem fa demal dëkk say loxo say wër jur mu ñaanal la lépp sotti kon dangay ngay dem ne yooyu yëpp dara mënu la cee may nag wala dara mënu la cee dimbali dul nga seet ko ndax dafay loo xam ne léeg-léeg ni ñuy manifesté woo dafa nuroo lool te jege léeg-léeg lii da rab ak liggéey ak cat seeni manifestation dafa nuróo léegi li la ciy dimbali nag pour nga xam ko maanaam seet lay doon seet moo lay dimbali pour nga xam ne lii moom nangam lii moo ko def kon nangam lii moo koy saafara kon sëriñ si boo léeg-léeg booy waxool maanaam ku la dàq seet boo amul sens trop trop trop mu lay dàq ñaan donte ñoom ñaar nag am nañu wuute waaye ki ci ëpp sens moom léeg-léeg mooy ki la dàq seet ñaari moo lay dàq ñaan ndax saa bu jógee dafay xool direct bunt ba war a jaar pour face pour saafara loola. jërëjëf kilifa gi acca kon dee leen di saytu seen i mbir laata ngeen ci dugg ndax doon na loo xam ne lu am solo la numéro bu ngi noonu affiche bi ci suufu barre d'écran bi yaa xam nga nekk ba bitim réew wala ci biir Sénégal foo ci jokkook moom rek dina jëflanteeg yow ba sa xol seddu guy acca damay ñëw ci xalwatu boo xam ne bu solo bi nga xam ne yaa ngi koy def ñu bëri di la koy bàkke bëgg naa ñu yaatal ci. Euh, waa sëñ Cheikh xalwatu. duhut dara mooy baatu arab la. baatu arab la boo xam ne dafay tekki li muy tekki ci wolof mooy wéet mooy wéet xalwatu nag dafay loo xam ne dafa yomb ci ñi nga xam ne xam nañ ko waaye dafay loo xam ne lu jafe la ci ki ko bëgg a te xamu ko ndax xalwatu dafay mbir moo xam ne euh, lu wér la te lu am la waaye nag dafay mbir moo xam ne dafa jafe lool lool lool ci jamono jiñ toll ndax condition yi muy laaj am ci bu wér rek daa jafe xalwatu bu wér am ci bu wér rek daa jafe ndax dafay loo xam ne dafay aajowoo ci ki koy liggéey ak ki ñu koy liggéeyal maanaam jëmm ki koy liggéey condition yi daje ci moom rek pour mu mën a liggéey xalwatu benn dana nekk fu wéet foo xam ne kenn du ko fa tànqal du jege nit du ko gis moo xam góor la war a jigéen la du lekk lu am ruux maanaam du lekk ay yàpp ak jën yu demee noonu ba ci nen du du naa nit loo xam ne dafay bàyyeekoo ci loolu lu mel ni ay soow ak ya ca ak i meew yooyu yëpp daf koy daf koy daf koy bàyyi maanaam nga xam ne dafay wéet ak yàlla suñu borom di liggéey dog boo xam ne dog bu wér la boo xam ne fu mu ko jëfandikoo rek yàlla suñu borom mën na ko ci defal suturam te it dafay loo xam ne am na ci génn xëccoo yi rek moo ci man dara lii di président wala min wala ministre wala yenn DG yi wala yenn ndombal tànk yu mag yi maanaam xalwatu rek moo ci man dara xalwatu rek moo ci man dara ndax léeg-léeg bu fekkente ne da ko seq ak sa juróomi morom wala sa fukki morom wala sa junne morom ku nekk ngi ñaanlu kii yaa ngi sangu kii di sangu kii di saraxe kii di saraxe la ca man dara rek mooy xalwatu léeg-léeg nag li ma ci xaw a jaaxal léeg-léeg ni def na naa sëriñ bi ma doon dugal xalwatu dibi laa ko doon yóbbu ndogu dibi la doon reere wala su ma statut moo koy jëkk liir te ne mu ngi ci xalawatu da ngay xam ne kooku day taxawaalu day tappale donc kon sénégalais yi ñu bàyyi ku woote rek ñu wuy la waaye xalwatu dafay mbir moo xam ne ni ku ci yor bu wér boo ko liggéeyee benn fan ñaari fan ñetti fan gën kaa bari juróom-ñaari fan wala juróom-ñeenti fan boo ko fàttoo aajo jum mën a doon laa wax de ba ci buur bu daan wala président wala nga bëgg fal ku bëgg a nekk président boo ko ci jaar yàlla suñu borom mën na la ci suturaal. acca euh, jëmm jii de doon na ci ñi nga xam ne doy nañ ma ci ñi nga xam ne mën nañoo fatul lii di xalootu doon te doon na loo xam ne lu jafe la ci jamono jiñ tollu acca waaye damay ñëw ci nopp nopp bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def. Euh, waa Cheikh Cheikh nopp dafay loo xam ne moom li may faral di wax ne lii di nopp ak seet ak dëddale moom bokk na ci gën a jafe ci ñaan yomb na nag ci ku ko xam waaye bokk na ci gën a jafe ci ñaan ndax problème bi mooy doomu aadama yàlla da koo bindul rek bàyyi ko noonu dafa am yu mu ko booleel yoo xam ne yooyu ko wër léeg-léeg nag danaa dégg yenn ci sëriñ si ne fasug jooni vingt 24 heures mën na am nag duma ko weddi ndax xam-xam la ndax xam naa ko yooyu ba ngay ne ca daara ja nga koy foye waaye nag yooyu une semaine quinze jours gën kaa bari 2 mois 3 mois day toj day tojaat. yooyu ay fas la yii ñu ne la ngay ubbi miim dugal yooyu yim gën a man jubalee ñu xuloo woon wala famille bu jaxasoo wala ñoo xam ne dañoo tasaaroo nga bëgg leen a boole waaye bu fekkente ne nopp nga xam ne nit kii da ko bëgg mu bañ moom mu wëran da nga ko dalaa bañ nga fexe nag ba mu topp la bëgg la nga gënal ko ndeyam gënal ko baayam loolu nag dama bëgg xam ne ñu xam ne xam-xam ma koy def xam-xam koy def te it dafay loo xam ne nii du loo xam ne danga koy teg ci ay ay ay fasak ay du ubbi miim dugal ak yooyu yooyu mën na jàpp waaye hmm. dafay dañaat waaye dama bëgg ñu xam ne li koy def dëgg hmm. xaatim lay doon xaatim lay doon joo xam ne da koy liggéey mu doon dog bu wér boo xam ne da koy teg ci alawaay xànjar di ko tàngal kooku moom amul nit ku ko mën a am ab sëriñ hmm. kum mën a doon da koy jàpp kum mën a doon laa la wax da nga koy jàpp mook tàggat soreewuñu ñoom ñaar dañoo bokk ndey rek te bokkuñu bàyyi waaw mook noot maanaam loo bëgg a defloo nit ki wala koo bëgg mu bëgg la mhm. ah wala man de koo bañ ma mu bëgg la moom bu ma ko wax ba ma tegu sama alluwa moo tax damay wax ne léeg-léeg sëriñ si moom bu dee nopp nañ ci génn te bàyyi ko man ndax yor naa ci liggéey boo xam ne bu ma koy ndax sa waruma ko di liggéey ndax léeg-léeg da koy liggéeyal nit yow da ngay dem ba far di ko rëccu ndax maanaam jàpp gu muy jàpp ak jéggi gu mu jéggi dayoo mhm. waaye nopp moom sëñ Cheikh dama la bëgg wax ne lu am la lu ama ama am la damay faral di wax nag moom ñaar ñi moom su ma ci jàppee su ma leen jàppee ñaar ñi jàpput ñaar ñi maanaam ñaari dal na leen benn borom mi ngi waaj a dem kaso wala mu ngi waaj a faatu képp ku ma noom jàpp ma la maam gën kaa yàgg weer du ko dundaat ci kaw suuf wala borom a ngi waaj dem kaso moo tax au métier kenn kenn kenn du koo xam ne yem na ma moom ci kaw suuf moom jëmmi nopp jërëjëf Cheikh bi xam-xam bi am na solo waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu nee naa leen mu ngi numéro bi mu ngi noonu af ci suufu barre d'écran bi ate ñu dox ba wéyal yaatal bu baax a baax dama ñëw ci mbiram papier mu di ñi nga xam ne dañoo bëgg a tukki cey jamono ji léegi tukki rek gars de moom fi mu ne nii mi moom ñëpp a ngi dem euh, waa tukki moom ah. euh, ni demee nii xëy na léeg-léeg boo ciy wax sax da rus ndax réew bi fu mu toll ah. ak ndaw ñi ni ñuy génnee ah. di dem di fi bay réew mi te nga xam ne réew mi euh, mooy mooy moom moom la ñu yaakaar te réew moo gis ay ndawam ñoo di seen yaakaar kon xëy na bu ñu génnee di dem am na lu xew waaye nag gënalu leen dañoo ñàkk pexe moo tax léeg-léeg danañ ciy dimbalante ak ñoom di ci liggéey liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla kuñ ci liggéeyal diir bu gàtt yàlla mën na laa suturaal moo xam da ngay dem la wala dangaa dem ba yëg bëgg kayit wala nga bëgg liggéey bu fekkente ne da ngaa bëgg këyit wala nga bëgg fa liggéey moom maanaam barab ba nga koy sàkkoo maam naa xam ka yor dossier ya maam du la jox nga takk duma la jox nga naan duma la jox nga sangu maam ki yor dossier bi naa xam turam moom su boobaa danaa la ci liggéey loo xam ne nii moom ci boppam boo déposé dossier bi moo lay ci ñi nga xam ne dañuy tukki moo xam ci yoonu suuf yi la moo xam avion la ñuy jël ñu ngi ciy liggéey ay ndomb yoo xam ne ni moom ci kartanu yàlla képp koo xam ne ni jox nañ la ko ba nga takk ko bay dem kum mën a doon duñ la wàññi moom moom danga dem ba yegg ba woote naa waaye kum ci mën a doon moom incha allahu taala moo xam yoonu kaw bi nga jaar moo xam yoonu suuf bi nga jaar waaye day su la wàññi waaye nag lii problème mu léeg-léeg dafay doon loo xam ne euh, nit ki mën na am ci ñetti problème benn bi mën na aju si jëmmi nit ki ci boppam moo xam yaramam dafa tëju wala dañ ko liggéey tëju dafa yaatu mën nañ ko liggéey cat mën na ko jàpp rab mën na ko jàpp waaye nag dafay delluwaat ca cosaanul ñaan la ma la waxoon mooy seet léegi da ngay xool ba xam benn ci ban moo ko waral bu ko defee nga jaar ak moom ci bunt booba loola saafara léegi-léegi dana nekk loo xam ne ni ay sarax moo ko moom la war a génne amaana sax benn keesu mbiskit la war a génne ajoom fajo mën naa am sax xëy na du ko mat mu génne ko ajoom fajo léegi-léegi danga ko seetal mhm. gis ne xëy na moom ci boppam lii moo neex yàlla léegi su boobaa nag da ngay jël si kurus ñaan yàlla yàlla saafaraal ko loola am sarax yu muy def moo tax dafay doon ay gàllankoor yoo xam ne ni faw nit ki day seet ba xam lii lan moo ko waral bu ko defee bu ci jaaree yàlla suñu boroom ma suturaal ko waaye kayit moom ak noob ni ma la ko waxee moom damaa yaakaar ne ci réew mi moom yemuma ci ku yàlla bind fii ci réew mi incha allahu taala ku ci am tawat bi wala ku ci am loo xam ne yaa ngi koy jàmbat saa su nekk mu doon problème ci yow soo jokkoo ak moom si yaakaar naa soxol dina sedd guy kooku mooy Serigne Ousmane sar atia damay ñëw ci jaaro bi jaaro yi bëri nañ nag waaye gars yi mën nañ tikki seen jaaro yi yem ci sa jaaro bi ndax li ci dëxañoo ci njëriñ moo bëri kaar macha allah. Euh, sëñ Cheikh euh, gis nga jaaro bi moo nekk nii jaaro bi moo nekk nii euh, dafay jaaro boo xam ne. Euh, du ma ci sax di bëgg di wax ndax boo xoolee mhm. mook faj lu mel ni ay cité ak hémorroïde ñoom laa jëkkee moom jaaro bi dafay jaaro boo xam ne du nekk boo xam ne dangay ñëw rek jël waaye jaaro bi da koy dañ koy commandé dafa am yoon nga wax ban jaaro nga bëgg ñu liggéeyal la ko mu ànd ak sa turu ndey ak sa turu baay liggéey bi ma koy liggéey moo tax dafay jaaro boo xam ne buñ koy liggéey mhm. liggéey bi gën kaa gàtt dana mat fukki fan ak juróom nga xam ne du doon boo xam ne da nga ñëw rek jël moo tax li yi muy àndal nag maanaam pour nga am ko ci réew mi sax dafay jafe yi muy àndal pour nga am ko ci réew mi sax dafay jafe waxuñu ko nag ne pour bitim réew lañ koy wuteeg yooyu waaye li muy am fii nga gis ko fi dafa yombul moo tax bitim réew lañ koy wutee ci ci ci dëkk yi ñu war lu mel ni gàmbi wala Mali foofu lañ ko ëpp lañ koy amee mm-hmm, mm-hmm. waaye jaara boo xam ne nit du ko takk mukk maanaam di yem ak say nawle yi ko takkul moo xam six mois nga ko takk wala un an nga takk maanaam un an moom boo ko takkee da nga yëg ak soppeeku sa bopp ba nga xam ne moom soppeeku am na moo tax damay wax ne réew mi moom jaaro moom damaa yaakaar ne moom du ne maa fi dàq de naa ne jaaro bi ma yor la xam naa ne jaaro bi ma moom wax dëgg yàlla lu la ndax man moom laay takk moom laay takk aca jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leer li am solo yooyu kooku mooy Serigne Ousmane sar dañuy dox ba léegi wéyal ñëw ci faj rab xam naa nag jaaxal nit ñi waaye yow la ku ci tëll rek indi ko ci Cheikh Ousmane Sarr. waa xam nga rab yàlla bi mu bindee doomu aadama dafa bind jinne léeg-léeg muy ñaar ñoo xam ne yàllaa leen sant ñu jaamu ko ni mu amee ay nit yu bañ nag nekk leneen nekkuñu ay jullit loolu la amee ci jinne yi ñoo xam ne gëmuñu yàlla leneen lañ léegi nag yooyee ñooy faral di féetéerlu du yàqalaate di lor doomu aadama yi di jaxasoog nit ñi loolu la ñuy tuddee rab mhm. waaye jinne la tur bi moo changé rek mhm. léegi rab nag dafa bari façon bari façon koo xam ne léeg-léeg mën na ànd ak nit ki di ko yàqal loo xam ne dafay jéggi dayoo dafay léeg-léeg moom xam nga dafa mën a gudd fan danay juddoondoog yow mhm. màggandoog yow boo dee góor mu di jigéen mu xemem la dem ba bëgg la di la fiire di la yàqal lu bare bare ah. nga xam ne boo koy defit boo boo àndeek moom ci yu baree bari maanaam mën na laa yàqal moo xam góor la gu dem ba war a tollu ci takk soxna mu koy yàqal lu baree bari góor la goo xam ne dem na ba am soxna mu téye ngóoraam góor la goo xam ne dafay dem ba am soxna am yépp waaye dafay yàq maanaam bu borom kër bi di sëyeeg soxnaam maanaam muy dox seen diggante nga xam ne soxna su su jógee rek borom këram la mu sëyeeg moom day suurwaat yooyu nag ay xeeti rab la yoo xam ne dañoo wute. ni ki noonu ni ki jigéen ki noonu lay demee ba pour mu am ngoro gu dëgër sax problème lay doon ku ñëw dem ku ñëw wax fulla ba mu jàpp ni kii moom bu fi jógee dana yónnee ay waajuram waaye yàgg-yàgg day bàyyiwaat du gisaat dara bu demee ba loolu mënu ko yàqal dana demit ba boo amee borom këram muy def ay coow yu ndaw seen diggante coow guddi coow bëccëg léeg-léeg mu dem ba yàq ëmbam wala mu téye sax borom këram dootu nekk góor wala bu demee sax mu dem ba ak njabootam mu di leen di jàpp wala mu leen di yàqal yooyu yëpp nag ay xeeti rab la yoo xam ne bokkuñu léegi nag benn bu ci ne dafa am heure boo xam ne nii moom koy tax a jóg ci la lay dugg léegi nag bu fekkente ne ràññeewoo woo leen xamoo ci ban heure la leen di dugg mën ngaa yor secret rab bu wér de waaye bés boo koy faje da ngay gën a sonal borom ndax xamoo kañ la ko dugg xamoo ban façon rek rab moo ko dugg xamoo nan la ko duggee léegi nag pour nga mën koo dindi ci lu gaaw maam da ngay xam benn ci ban moo ko dugg fan la ko duggee ak nan la ko dugg duggee bu ko defee nga mën koo dindee moo tax man léeg-léeg damay faral di wax ne ñi ma koy dindee gën kaa yàgg du romb ñaar fukki fan ak nga taqale ko moom moom moom rab nga nga nga am ci résultat moo tax léegi léeg man euh, booy xoolee ci faj laa gën a sawar sax léegi léeg kañaan ndax faj dafay loo xam ne ni résultat lay laaj automatique nit ki bu ñëwee di daanoo ko def yëf bu ñëwee bu boo ko fajee ginnaaw yàlla day xam ne yow mii yaa ko faj waaye bu dee ay ñaanal wërsëg yooyu yàlla mooy kii waaye nag léeg léegit yàlla mën na ko jaare ci waaye mën na bañ a nangu waaye lii moom un plus un égal deux la moo tax xam-xam rek mooy li nga xam ne moom moo moo jërëjëf am na solo aca laata ñuy jeexal dugg ci actualité damay ñëw ci téere boo xam ne bañ am wujj la ah ki dinañ lañ góor ñi dinañ la mere de jigéen ñi li rek lañ kii tey bañ wujj téere bi. Euh, sëñ Cheikh euh, téere bi li tax ma mujjee ko mooy mhm. dafay téere boo xam ne dafa am solo euh, defuñu ko nag ngir xëy na góor ñi bañ a takk ñaareel waaye léeg-léeg da ngay gis ko xam ne dafay nekk ak borom këram muñal ko lu ne. daj ca kër gu lu ne lu ne fekk fa mu dem ba yëf yi bëgg a sotti maanaam keneen ñëw bëgg a jële du ñëw ñëw ci yem ak moom wujj de waaye daf ko fay bëgg a jële wala mu bëgg koo def ci ay caaxaan moo taxoon ñu liggéey ci téere boo xam ne képp koo xam ne am nga ko muy mag muy ndaw ci jigéen ñi yow moom takk ko rek takk ko rek maanaam bés boo ko takkee maanaam kii di sa borom kër moom maanaam fu ñuy waxtaanee ñaari jabar sax moom du ko fekkee yow moom ci sa àddina wujj moom danga koy dégg waaye du oh, jàmm de maam moom lii ma lay wax ni moom du du du ay caaxaan man nag damaa baaxoo am na yoo xam ne du ma jékki-jékki di ko génne ndax du tey lañ jëkk def émission te tudduma ko ci xëy na jaar naa ci ñenant te tudduma ko ci kon su ma demee ba koy génne rek am na lu tax am na lu xew de dama cee am ay résultats yoo xam ne ni moo tax ma sañ koo génne moo tax téere la boo xam ne ni képp koo xam ne ni dangaa bëgg yow ak sa borom kër rek ngeen dund ba faatu doo am wujj fexe la am téere bi waaw képp koo xam ne nag amagoo téere bi xamal ne mucc goo ci am wujj xamagoo ne mucc goo ci am wujj moo tax daal képp koo xam ne ni bëggoo sa borom kër takkal la ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel fexe la am téere bi seen cher góor gu ci bëgg ñaar ba ñett ñeent ñemewut nag fàggul leen téere de waaw yooyu yëpp am na maam bépp góor boo xam ne ni maam da ngay bëgg ñaar wala ñett wala ñeent sa borom sa sa sa soxna bañ maanaam yow sa soxna yow jox ma turu ak turu yaayam rek moom ci kartanu yàlla moom la waru wa sax moom dana ci participer incha allahu taala baa du ma am problème loolu de maa ko laajteel góor ñi jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Ousmane saar jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu acca nee naa leen saa bu ma ko dalalee rek damay kontaan ndax day waxtaan ci xam-xam lépp da koy wér ci baatin bi nga xam ne suñu borom am na lum ko ci dénk acca nee naa leen euh, du naqare jot saa su nekk bi mu noonu ci suufu baar bi acca dañu jeexal ci xew-xew jamono mu di actualité laata may ñëw ci li nga fi waxoon président am na ko mu tab de waaye coow yi bëri na am nañ ci démissionné sax ñenn ñi moom fi mu ne ni coow li bëri nañ xam man dañoo nanguwut a topp ci ginnaaw Amadou Ba li nga fi waxoon APR nañ féetewoo supporté ka tàcc yaa ngi ci ba léegi. Euh, sëñ Cheikh euh, gis nga xam-xam yàlla daa dogal daa yem a dog lu bari wala daa yem a dog daa daa daa daa daa yem a dog ndax suñu borom mooy wax ne hal yastawi alladina yaalamuuna walladina la yaalamuun ñi xam ak ñi xamul ndax dana yem duñ yem ba mukk gis nga lii di présidentielle élection yi di ñëw maanaam lama la ca waxoon la la ca waxaat rek maanaam jëmmi jëmmi APR maam seen nguur moo jeex jamono ji maanaam jëmmi même Macky Sall kooku sax moom feete na boor waaye keneen ku mënoon a falu ñoom dañuy daanu jàpp na Amadou Ba waaw xam nga mais ñaata président nga gis yu jiital mbër ñu daan leen. waaye ñii ma lay wax wax nii te cité loon la ko. kenn ki sant Fall. kenn ki sant Wade kenn ki sant Sonko. jamono jii moom da di seen biddiw. ku ci am ñaan tuuti rek. wala nga am ci sarax tuuti ku ko xam génne la ko. ci kattanu yàlla yow yaay wutu Macky Sall. yaay wutu Macky Sall. ba nekk ci prison bi ba léegi ak jafe-jafe. nekk ci prison bi. maam jëmmi Sonko moom euh, damay wax ne léeg-léeg Serigne Sina ñu ngi koy ñaan man xaw na maa jaaxal man xaw xaw xaw xaw na maa jaaxal waaye euh, génn ko kaso moom jafewut jafe goo xam ne nii ya war naa tax mu mën a yàgg ni ci kaso bi moom jëmmi Sonko waaye ñi ma la wax limbal daal ñetti ñi moom ku ci am ñaan tuuti wala nga xam xam ci ku xam sarax tuuti ci kattanu yàlla yaay wutu makisal li tax nag moom dafay loo xam ne ni jëmmi APR. wala jëmmi Macky Sall ak ñi mu àndal ak ñi muy fal ñoom seen nguur moo jeex léeg-léeg nit dafay toll foo xam ne ni bidéwam dafa fenq bu góor góorgóorlu tuuti ci ko xam baatin yàlla mën na leen a dimbali léeg-léeg dafay toll foo xam ne yow sa bidéw day suux te ñoom foofu lañ tolloo maanaam yëkkati leen moom yaa jamono jii nii ah yaakaaruma ne dana mën a nekk moom. ñett ñi nga mëlimal daal ñoo ngi gis présidentielle 2024. nii nii nii nii nii ku ci góorgóorlu tuuti laa wax yaay nekk président man de li ma jaaxal euh, Sonko mi nekk ci prison bi waa Pastef astafurlah damaa juum daa mel ni Pastef sax nekkatul tey maa wax Sonko 2024 est-ce que kooku yaakaaroon ne ñoom duñu xaar. Ah, déedéet loolu moom du du du dara. loolu du dara maam Nelson Mandela fu mu nekkoon ba ñëw nekk président loolu moom du ci dara maam boo xoolee Sonko biñ ko tëjee ci la gën a siiw ba ci fi mu nekk nii bërki dem match Sénégal bi Algérie. bi match bi jeexee kenn commentéerul ci match bi léegi-léegi da ngay dégg sax ñu ne la homme du match Ousmane Sonko la kon loolu moom tëj ko moom yàqalu ko dara te tëj nag kaay ma xamal la dana yokk góor ay garaat danay dolli nit ay maxaama dana tax yàlla waroon laa teg natu boo xam ne ni amoo ko mu jaarale fa ngir mën a yëkkati say mbir yooyu yëpp dafa mat a sóor waaye ñett ñi man a limal moom incha allah ku ci góorgóorlu yàlla mën na laa suturaal incha allahu taala ci jeexal ndax gis gis nga fenn foo xam ne du yàggati dara du dee liberté provisoire sax ñu may ko Ousmane Sonko dina am wala. waa xam nga loolu moom man damay wax ne man su ma ci liggéeyoon ba ñu ma ciy liggéey nag waaye dafay am yoo xam ne nii léeg-léeg dafay am yu muy laaj waaye bu ma ci liggéeyoon ma ne dana fa toogaat 15 jours wala gën kaa yàgg weer du génn ci kaso bi lii moom maay la ko wax muy lu wér loo xam ne nii nag moom li ci kanam raw di bët li ci kanam raw di bët incha allah. sukran ñu bala nga tàggatoo ñaan. baax na ñu ngi leen di nuyu baax baax di leen ziar euh, di ñaan yàlla lépp loo xam ne ne wax nañ ko fiit mu jur njariñ di nuyu seen mbokki internet bi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.